siyaar bu baax a baax Serigne Gade Cissé daal mu waxee ñooñu ñoom sëñ Mbay ñoom sëñ Gade ñoom ñoo nit ñi nga xamante ne tey jii ay royukaay lañu ci biir dëkk bi ab Baay Faal nekk boo ko déggee moom doxinam yépp mooy toppe te tey jii ñoom ñooy suñuy kilifa ci yoonub islaam kon dañuy ñaan yàlla sunu borom bi nga xamante ne nag moo yoru fan yu gudd sunu borom aar leen sàmm leen ba yéene gi nga xamante ne am nañ ko yéene ci njaboot gi ak sunduk njaay bopp Morlan yëpp sunu borom murtili lépp ba ñu am ci ndam di santaat yàlla mi nga xamante ne nit moo yorub mbaax ak ndimbal ak fajub aajo ba ñu may ñu ñu amuk wér ba ñu teew fii tey jii ngeen ñuy wax ñuy mën a toog kon sant nañ ci yàlla sunu borom bu baax a baax di wax ne dëkk bi it jàmm moo fi am wàllu tiijaan Waluk murid bennoo gi fi am lu jafal waaw ndax te tay ji dañuy lant ci lu nek tay ji lepp lo xamantene tay ji ñuy Serigne salu Ndiaye ak njobotam xewlo nañ ma ci wax te day jek jek mu jël telephone am woma dima dima dima di di nuyu di ñaanal di naan ma ngi lay ñaanal kon ki lay ñaanal da bëgg nga baax. kon ku may ñaanal nag war naa teg sama tànk foo xamante ne waa dëkk bi xam ni wax dëgg yàlla kii fii waajur yu tegoon seen tànk moom teg na fa tànkam kon ne loolu mooy suñu amub yéene te yéene gi ñu am nag te ma mun ko wax pour ñëpp jàpp ko mooy ni ku la mag jox ko jër ku la mot baay jox ko cër ku la mot yaay jox ko cër ñu bokk ndey ñu bokk baay bokk yéene bokk pas-pas bokk ànd lépp loo xamante ne ab njariñ la ñun ñëpp ñu jàpp ko ñu xam ni njariñ moo war ñu koy def lépp loo xamante ne ab safaan na ne eh, yàlla buñ ko sax gis sunu borom dimbali ba ñu tegu ci yoonub ñu eh, dëkk bi nag góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ma ma mag fuuf gën gën ma xamub kon bu ñu demee ba fu ma génn ñu wormaal ma ba jox ma cër kon lamay nan ñaan waju rengi ci mo ci ne ta tamit sama waju doon kilifa xamanteni tay ji bon moo ñu ak def lu bon te dafa def lo xamanteni ci dekk bi ñepp dañ ko ko nawlo ñu yaakar seeni doom fi ñuy tek seeni tànk mu doon njariñ bo xamanteni war na xettali dekk bi kon nek ñun suñ toxawaay ci biir dekk pour xettali nit ñi du cër nek motax ñuy waxe ni du bëgg wono it motax ñuy waxe ne xeyna xamanta xamante nañ bu yagg li bu ko nangulé rek yar bi ngeen am ak mbax bi ngeen ma won motax ma nangul nga motax bo le ma ñaané dar rek xeyna mom bu ma sikké mom nit mën na ma mer ci sama sik man gisuma sik ci dëkk bi lu commencé kilifa yi nga xamante ne ngank dëkk bi muy imami, yi muy taaliba muy nit ñu bax yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi képp koo xamante gis nga ci ñoom gis naa ci ñoom leneen lu mbaax rek kon sama defar mooy mbaax bi nga xamante ngi koy gis ci ñoom jeunesse bi dañoo baax muy yéen boo leen fekkee ne tey jii da ngeen def seen conférence bu yaatu muy islam ngeen xool dëkk bi yëpp ma doon ci tutànk te mu leer ma ne am na ñu ma gën a jàng jàng xam-xam ñu ma gën a gëm sunu borom ngeen xool bis bu jekk ngeen naan tuddee nañ la ko ma ñëw teew ci bis ba ngeen wormaal ma yëkkati sama daraja kon da ngeen bëgg ma baax moo tax ma dëkk bi dañoo baax ngir dañoo bëgg ma baax di siyaar ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla sunu borom boolu ñu jéggal tundub àdduna bi tundub sénégal réew mépp xam naa ne lii day yaatu fu nekk képp koo xamante dégg na sunu baat gii te mu doonu baatu bi yéen noo ngi ñaan barkeb Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall barkeb Serigne Mor Dia ci kaara ngay bu shifa yi képp ku ko dégg yàlla na yàlla faj sa aajo ci saayir ak baatin ci kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah barkeb Serigne Bamba Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah